jërë ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo dal leen ak jàmm ci seeni actualité du jour eh, di xibaar yi gën a fës ci internet bi yi de xibaar dañ koy dooree ak faatu soxna si sile di faatu Kiné Gaye gannaaw kon bañ ko fekkee ca multi service bii di établissement Mansour Sy nga xam ni fale daanee dooleem eh, foofe ca diwaanu Pikine rue 10 di koy faat fi mu ne nii nag police daal dinay eh, teg loxo kañu jortees ni nag moom moo def googu lekk ñaawteef gannaaw bañ ca woyalee seenub enquête enquête xel yu baree bari nag doon jàpp ni moom Fatou ne gay mi ay Samba Boy ñoo ko fekk ca bërëbu liggéeyukaayam daal di koy euh, agressé waaye fi mu ne nii kon euh, loolee lépp du dara lu ca am ngóor suñuy wax euh, xaasim ba jamono ji jàpp nañu nag moom képp kundung moom moo faat soxna si di Fatou Kiné Gaye te la ca gën a yéeme moo di moom xaasim ba mi li nag ku xam ki ne gay bu baax a baax la ndax moom moo nekkoon superviseur am ñoo bokkoon liggéey ba ñuy def moom Fatou Kiné Viviane ba noppi kon dafa daan jël xaalis bi versé ko ko fi mu ne nii nag gannaaw bañ ko tegee loxo daal dinay passé aux aveux moom ngox si de di xaasim ba nag kamu joxoñ baaraamu tuuma du kenn ku dul euh, soxnaam fi mu ne nii daal la ko dugal ci guute gi yépp du leen lu dul ngénte doomam mu di seenu taaw kon nga xamante ni sax niki démb moom lañ ko doon euh, tudd moom xaasim ba mile daal la ma xamal enquêteurs yi moo di soxnaam si le ak njabootam pression bu méttee métti kawam ngir mu dajale nag koppar gu bëri ñu mën a def ngénte lu rëy jëmale ci seen taaw boobulee ca noonee nag kon plan ba mu ca nas du leen lu dul boobu lépp xaalis mu daal di koy jële ci Fatou Kiné Gaye mile ci noonu nag daal dina koy euh, déclaré ni ko versé na cinq virgule cinq euh, millions su ko defee kon la ca des mu di koy jël def ca gafagaam te kooku le nag di Fatou ne Gaye ñaari millions képp la ko jot encaissé laata sax muy dem di ko ab lu toll ci deux cent mille francs moom soxna si leen nag daal di bañ ci Xaasim Ba ca la génnee ca transfert d'argent ba daal di dellusiwaat nag akub paakam lu toll ci fanweer ak juróom-ñaari paakam moom la ko bojj soxna Sile ba mu ñàkk moom mi nag li di paaka boobu boobule ak ay yëreem nga xamante ni dafa takkoon deret ak lu toll ci 1,9 million enquêteurs yi fekk nañ ko këram ci benn armoire moom Xaasim mi nag nee na la des ci xaalis ba sax daf kaa jox soxnaam Sile ngir lu jëm ci na muy préparé ngénte jongante la leneen lañ ca mën a jàpp itam moom moo di moom Xaasim Ba mile lii nag du bulet muy def njombe ndax nag ci mariage am lu toll ci cinq millions moom Xaasim Ba mile nag daka baloon ci benn bërëb bu ñuy leble xaalis laata sax kon muy daal di rek simuler benn agression daal di nag yóbbu xaalis muy détournement lu toll ci ñaari millions loolee tax sax ñu dàkk ko ca bërëb ba mu doon njëkk di liggéeyee ngi soxna si leen nag di faatu ki Kiné Gaye borom këram di Habib Sy daal dina xamle ni wan lu woon lor comme niñ ko doon fësalee lu baree bari ci yéenekaay li moom soxna si la nag nit ki démb kon daal dinañ koy denc foofee ca diwaanu Tiwaawan beneen mbir bu ñuy waxtaanee moom mooy rek ray yu bëri am nit ki bi ñu weesu foofee ca diwaanu Dakar foofu ñuy wax nag jàmm gën kii di Xaban Dieng moom itam dañ ko daal di faat kaka faat nag ñu xamle ni kon seex ci benn pëmbër bu ñuy wax Mame Lamine yëpp yi nag mi ngi xewee kon foofee ca diwaanu jàmm gën si kambaaw moom mi leen nag ci benn xeex bu mu doon xeex ak xàbban jee kon ca la jël lekk xotti biteel daal di ko kay jam ba noonee kon la mujjee succombé si ay blessure am ñàkk bakkenam gannaaw kon ba mu defee jeye moom frère jumeau mbër mi di mam Lamine dafa daal di rëccoon nag dem ay atam kon tollu ci fanweer ak ñett waaye ci lu gaaw a gaaw ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy takk der yi daal nañ koy euh, interpellé euh, ba yóbbu ko foofee ca poste bu jàmm gën euh, Sicap Mbao mu jàkkaarloog enquêteurs yi nag moom nday mbili gi la mu ca xamle mooy ki nga xamante ni moom moo di xaabal jee moom moo ñëwoon kon ci seen kër di seeti nag kii di mbër mile di Mama Lamine kon nga xamante ni sax ni ki démb dafa waroon bëree version ba mu joxe nag mooy xaabal mile ba muy egsi foofee dafa fekkoon mu màndi nee nag daal di ñëw joteeg moom di xeex ak moom gannaaw kon ba ñu demee ci ay xeex ci la jël xottu butéel bi nga xamante ni kon moom la yoroon daal di ko koy uh, jam ci baat bi moom Xaban Dieng nag uh, ay atam mi ngi tolloon uh, ci vingt quatre ans bokkoon na itam ci entourage yu mbër mi di Mame Lamine jamono ji nag kon gannaaw ba ñu ko placé en garde à vue teewul ñoom policier yu poste Diamaguène Sicap Mbao ñu ngay woyal ci seen enquête ngir leeral dëgg-dëgg ci yan anam la faatoo moom mi nga xamante ni moom mooy Xaban Dieng dem foofee ca tribunal grande instance bu Louga ak chauffeur bañ fa doon eh, eh, nga xamante ni ñu ngi koy tuumaal ni kon benn bu jigéen boo xamante ni mineur la moom la jël def ko objet sexuel am eh, di sekk moom ba noppi nag di ko menacer ni dana publier photo ya moom Ngor Sylla nag di wuyoo ci turu Ousmane Sow ab taximan la fi ne nag tribunal bu luga daal di na daan ñaari atu kaso yoo xamante ni daf koy tëdd ñu ngi ko reconnaître coupable nag ni dafa transformé ci ay menaces. benn mineur en objet sexuel laata mooy sax di ko menacer ni day publier seeni image obscène bañ doon sekk ñoom ñaar bu ñu sukkandikoo ci journal bi di l'observateur ni mu ko fësalee moom bi leen ak di Ousmane Sow daal dinay répondre ca yooyu les délits ñu teg ci ak ndoddam waaye itam li di détention de chanvre indien bi nga xamante ni daf ko doon jëfandikoo fii nag buñ ci dikkaatee ca na mu demee woon lépp mi ngi dooree ci atum 2020 mille ginnaaw ba nga xamante ni kon euh, ñoom dañuy wax famille Cissé nekk foofee ci commune bu ñuy wax Gën Saar nekk euh, ci euh, région bu Louga kon nañu nemmeeku seen doom bu jigéen bi nga xamante ni fukki at ak juróom jàpp juróom benn la am dafa jékki saay réer ca noonee nag ñu daal di commencé seeni recherche su seet ba sonn gisuñu ko ca noonee ay waajuram ca lañ dem ca gendarmerie ngir daal di koy signaler lañu ubbee ab enquête ñoom ñi di takk der yi laata sax ñu lancé benn avis de recherche njaboot njaboot gi itam ci seen ko wàll di seet euh, seen doom fan la war a mën a nekk gannaaw kon ba ñu xoolee rukk-rukkaatu njàmbur yépp gisuñu fenn fu seen doom ji di Cissé war a nekk ci la sax seen xalaat euh, commencé ñaw waaye teewul ñu garder espoir gannaaw kon bi ñu toogee ci diirub ñeenti weer di seet son doom ji lay gisuñu ko ci weeru mars 2021 moom xale bu jigéen bi di Cissé ci lañ ko séenee foofee ca diwaanu Louga muy liggéey nag ci benn euh, restaurant foofee kaka gis ci lañu informé gendarmerie brigade bu Gën Saar ñu daal di ubbiwaat euh, dossier ba ginnaaw kon ba ñu wéyalee enquête yi ngor si lee di euh, Ousmane Sow nga xamante ni kon euh, dañ ko loon seet ndax dafa ne woon mër réer ca lañu ko daal di teg loxo daal di ko yóbbu foofee ca gendarmerie bu Gën Saar ci kanamu baar bi nag moom daal dinay nangu li nga xamante moom mooy charge yu ñu jàpp ci moom waaye nee na benn yoon xale bu jigéen mariage leneen nag la gën a yéemal tribunal ba moom moo di ndaw sile di assisé nga xamante ni ab xale la euh, mineur la nee na nag dafa bëgg taximan bi la di euh, oo saw te nee na sax euh, pare na ngir daal di sëyeeg moom buñ ko ko nangoo mbay fi mu ne nii nag moom Ousmane Saw mi lee tribunal bi daf ko daal di daan ñaari atu kaso yoo xamante ni daf koy tëdd rap ñu koy toppee kon délit yi di détournement de mineur viol pédophilie ak détention chanvre indien mbokk internet yi fi dañu yem ak yéen tey ci seeni actualité du jour jox leen dig daje ëllëg ak jaam ci yeneen xibaar jaay ngeen jëf